salut les amis ziar naa bu baax a baax dal leen ak jàmm ci seen podcast Wolof teg bi leen di tegtal lépp lu jëm ci wàllu informatique ak nouvelle technologie maanaam xarala yu bees yi ci kàllaama wolof alors tey nag émission bi dafa spéciale. comme ni ñu ko waxee woon semaine passée euh, pare nañu saison 2 yi maanaam bi ñu doon wax ci application mobile yi waxtaan nañ ci lan mooy application mobile ak application mobile yooyu fan la ñu wax nañ aussi ci xeetu application mobile yi mais aussi yan xam-xam ak yan jumtukaay lañ war a jëfandikoo pour defar application mobile yi alors tey nag ci épisode bi dañuy tënk lépp li nga xamante ni waxoon nañ ko ci saison boobu noonu mais aussi waxtaan ci avenir application mobile yi fii ci Sénégal ak fan la application mobile toll actuellement ci ci lépp lu jëm ci wàllu sécurité informatique alors pour loolu nag euh, pour waxtaan boobu nag dañ ciy ànd ak ñetti invité maanaam ñoo xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci domaine boobu noonu alors ki ci njëkk mooy Ibrahima Ciss ingénieur la euh, xam-xamam dafa màcc ci lépp lu jëm ci wàllu de développement application mobile yi nga xamante ni mooy dem ci iOS yi Ibrahima ziar nañ la. Euh, delloo ziar bu wér alors comme ni ñu ko waxee déjà maa ngi maa ngi nuyu di nuyu euh, di lay ziar yow sama turando Ibrahima. di nuyu sama naataango yi Gérard ak euh, Mimistique ah Soxna Kaba. <laughs> je vais dire <laughs> donc euh, man développeur iOS là depuis maintenant six ans. donc mhm. sama xam-xam si tout ce qui est développement iOS la la xaw ah non non non il paraît que yow yaay expert bi quoi alors. non. <laughs> invité bi ci topp moom mooy Soxna caba Diop moom euh, ingénieur la ci lépp lu jëm ci wàllu développement application mobile yi nga xamante ni mooy daw ci Android Soxna Thiaba ziar nañ la. delloo ziar Ibrahima maa ngi lay gërëm ci invitation bi nga ma invité tey comme ni nga ko waxee man la Thiaba Diop. mystique moom ma gën a xamee. voilà euh, ingénieur en informatique euh, maa ngi commencé euh, jàng Android développement Android en 2014 mais pratiquer bi la commencé. ok maa ngi nuyu tamit Gérard ak Ibrahima Ciss. ma bokkal pratique. alors ah, macha allah alors benn invité bi ci topp mooy Gérard Dacosta. moom ingénieur la xam-xamam dafa màcc ci lépp lu jëm ci wàllum sécurité informatique maanaam nak la ñuy def ba aar ñi nga xamante ni ñooy utiliser xarala yu bees yi voilà aar leen ci pirate ñiy def piratage ak voilà yu demee noonu alors euh, Gérard ziar nañ la. waaw ah, maa lay delloo ziar Ibrahima. ok ziar na donc maa leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di rafetlu teewaay bi xam man moom sénégalais laa <laughs> mais d'origine donc sama olof demeewul noonu. ah ok non mais amul problème amul problème. mais mais dañuy dañuy waa gis nga <laughs> mais <laughs> vraiment mhm. kontaan naa nekk ak yéen. ok merci et comme noo waxee man ingénieur en informatique laa donc ay sécurité informatique mooy sama spécialisation. et kuy wax sécurité informatique mooy il faut am benn connaissance large si divers domaines. ok yu yuy couvrir euh, informatique donc. loolu moo waral sama présence tey ma jéema a ensemble ak sama gars ñu jéem a indi ay leerlu si utilisation application yi ak nu ñuy màccu si si. Mhm. piratage yi ak yooyu. ok merci donc kontaan naa nekk si allez merci beaucoup Gérard Dacosta. alors léegi nag dañuy euh, dugg directement ci euh, premier point bi. Euh, c'est-à-dire dañoo gis ne fi mu toll nii euh, ci àdduna bi téléphone portable yi bari nañu torop bari nañu torop torop torop il suffit que nga am tuuti xaalis rek pour nga mën a am sa benn smartphone installé ci ay application yu la neex mais aussi gis nañ ne euh, basiquement fonctionnalité yi nga xamante ni moo nekkoon ci téléphone yi sax léegi fonctionnalité de base yi nekkoon ci téléphone yi léegi nit ñi utiliser duñ ko mais ku taal sa téléphone rek yaa ngi utiliser ay application soit yaa yaa ngi Instagram yaa ngi Twitter ainsi de suite ainsi de alors Ibrahima lan mooy application mobile yi ak euh, lan moo war a tax ñu utiliser application mobile yi te pourtant site internet yaa ngi fii ak yeneen demee noonu ak lan moo nekk seen njëriñ yow ci sa xalaat voilà. waaw kooku euh, c'est une très bonne question bon déjà euh, suñu jëlee le mot application mobile euh, déjà ñaari ñaari mot la il y application et mobile. donc suñ ko waree euh, maanaam suñ ko waree euh, tekki application mobile daal euh, ab benn benn logiciel la wala benn benn programme boo xam ne day dox ci ay appareils électroniques mobiles comme comme tu l'as tu wax nga ko léegi nii comme suñu téléphone portable yi suñu smartphone yi wala sax tablette d'accord léegi pourquoi ñu koy utiliser xam nga du moment où programme la programme dañ koy sant mu def benn benn liggéey bien défini ah donc euh, am na ay programmes yoo xam ne tey jii da koy utiliser pour jàng par exemple ah ay programme yu lay jàngal yu lay jàngal ay application yu lay jàngal ay application yoo xam ne foo toll mën nga mën nga connecté wu ak say mbokk yu nekk si euh, si àdduna bi yëpp comme euh, on a l'exemple de de WhatsApp mhm. n'est-ce pas exact am na tamit ay application yi lay permettre nga xam sa yoon par exemple man mi tey jii su ma waree dem fenn fu ma xamul mën naa ubbi Google Maps ah mu mu ma yoon bi exactement ba tey jii mu mën a dem fi ma war a dem sans problème ah yeneen ak yeneen ak yeneen donc si tënk daal mën nañu wax ne application mobile benn programme la boo xam ne dafa am un but bien précis donc euh, am na ay application yoo xam ne la majorité quand tey jii euh, daf ñuy dimbali yokk euh, améliorer quand même suñu suñu style de vie on va dire hmm? parce que application boo xam ne il y cela dix quinze ans vingt ans derrière si ginnaaw euh, on on avait que les téléphones euh, portables yi nii pour woo suñu mbokk yi directement di fay xaalis bu cher tey jii mu am application boo xam ne dinañu permettre ñu def loolu. tu vois sans pour autant quand même euh, nga débourser benn xaalis bi donc euh, tey jii mën nañ méngale application mobile yooyu noonu ak euh, ak yokku. ok ah c'est c'est très bien expliqué yaakaar naa ni nga ko expliqué nii sax man bi may def sama épisode beneen passé expliqué ma ko noonu quoi mais je pense que yow laa waroon jël nga def affaire bi sax quoi. mais déggal bàyyi tooñi waay. <laughs> alors alors gis nañ ne actuellement aussi que ne. comme ni ma ko waxee euh, woon sànq nii téléphone portable yi bëri nañ trop quoi parce que ci biir téléphone portable la ñuy installer euh, application yooyu noonu mais téléphone portable yi dañoo différent bëri nañ dañoo wuute trop quoi des fois di nga gis ñu ne la bii iPhone la euh, bii ñu ne la bi Samsung la mais ci biir Android moo ci nekk wala yenn saa yi ñu ne la bii téléphone Tecno la Android moo ci nekk alors caba yow euh, lan nga xalaat ne moo waral euh, wute boobu noonu am ci téléphone yi euh, ba tax sax tey mënuñoo gis benn téléphone iPhone boo xamante ni Android mooy nekk ci biir pourquoi pas je sais pas voilà damay wax waxu ah, wala ñu gis benn téléphone Samsung boo xamante ni iOS moo war a nekk ci biir donc lan moo tax loolu yëpp amut ak lan moo indi différence bi am ci téléphones yi ko Thiaba. d'accord différence boobu si man genre marque yi dañoo wute premièrement par Jean Apple moom dañuy day créer benn appareil am hmm. benn smartphone mais système am la ciy def hmm. mooy iOS par exemple euh, il y a aussi euh, smartphone yi daw ci Android Android moom si open presque euh, marque yu bëri marque téléphone yu bëri comme Samsung Tecno wala yeneen ñoom dañuy utiliser euh, système Android iPhone moom euh, kii iOS moom c'est plus privé ñoom moom dañoo xaw a siis des fois loolu laa ah. leen di <laughs> yaa ngi tooñ yaa ngi tooñ Ibrahima Ibrahima siis la sant de. <laughs> sant tu vois. waaw gis nga. <laughs> yow tamit yow. dañoo tax ñoom moom seen système. ñoom dong. Mhm. Euh, euh, si seen si seen appareil iPhone dong lay daw. yaa aussi beneen système Microsoft Phone su ma juumul su ma juumee tamit ñeenti jéem Microsoft exactement Windows Phone xam ne si si appareil Windows Phone rek lay daw loolu mooy différence su euh, kii Android dafa am Android boo xam ne système système Android dafa am système iOS boo xam ne si iPhone yi rek lay daw iPhone marque Apple ak euh, Windows Phone bi nga xam ni day daw si euh, si appareil Windows yi. loolu waaw waaye parce téléphone yu bëri lañ trop tu vois mais kenn euh, Ibrahima Ciss wala Gérard bu fekkee am na ku ci bëgg wax dara voilà mën na ci wax dara yokk dara quoi ça dépend voilà donc mais téléphone yi moom bëri nañ trop ci marché bi quoi moo tax fi toll nii xale boo gis rek mu ngi yor téléphone bu ko neex voilà installé léegi li tax ñuy def euh, émission bi sax loolu la pour permettre nit euh, bu ñuy di utiliser nii utiliser sans pour rek ñu xam li defar benn affaire wala genre yu mel donc loolu moo tax euh, ñuy faram fàcc affaire yi pour mu gën a euh, leer ci bopp nit ñi alors mais ci wàllum sécurité nag euh, maanaam naka la ñuy def ba aar ñi nga xamante ni ñooy utiliser téléphones yi applications yi gis nañu aussi téléphones yi bëri na comme ni ma ko waxee sànq du ko du chaque jour dama koy wax ah yi aussi ay millions et million applications la ñoom Ibrahima sis ak ñoom Thiaba dañuy defar rek voilà dañuy defar ay applications nekk quoi tu vois <laughs> Euh, ni ñuy utiliser application yi dafa bëri trop quoi comme ni mu leen neexee alors Gérard est-ce que application mobile yi am na sécurité. Euh, merci pour question bi donc man fu may njëkk a commencer mooy damay njëkk a remonter ci gars yi lu ñu wax ci application yi. Mhm. donc euh, man euh, beneen lu mu ciy doole rek mooy lan moo tax application yi gën a bëri mooy day offrir comme gis soo bëggee ñu gën la gis. si ab si sooy développé affaire mobile lañ lay gën a gis parce que comme ni nga ko waxee ñu bëri léegi am nañ téléphone. donc ku nekk mu ngi utiliser téléphone donc tey boo bëggee am benn genre ñi ñu mën a gis xam looy def wala li ngay développé wala ay jeux yi ngay kii wala yeneen application yi donc sooy développé si mobile ngay gën am visibilité ak euh, gagné xaalis bu bëri donc man si côté boobu la ngay waxee. ok léegi euh, sànq wax nañu si différence téléphones yi et cetera donc tey gis nañ que Android nit ñi moom la ñu utiliser. ok. donc man benn exemple bu simple laay wax gis ngeen fii nii dañuy par exemple Windows nit ñi dañ ko yeb dañ koy ake Linux kenn du ko ake donc Linux amul virus mais gars yenn saa yi ñuy def erreur genre un pirate mooy nit ñi di def jëfkat bon yi da ngay jéem a dugg ci seen xel xam naka la ñuy fonctionner par exemple benn sàcc tey du dem dugg ci kër boo xamante ne am na deux nit mu ne da leen di jéem a sàcc. waaye ça alors gis na benn groupe bu taxaw foofu noonu group bu bëri. ça jaxasoo si groupe bi. Mhm. donc nu muy jaxasoo si groupe bi dina gën am chance sàcc ay nit que duñ ko gis que mu nekk ci deux personnes yoo xam ne taxaw donc c'est la même chose boobu la ñuy xalaatee tey iPhone dafa tëj système am donc ñoom dañoo am mainmise si seen système. donc lépp loo xamante ni da nga ko war a di def ñoom ñoo la koy proposé mise à jour dañoo am sax septembre utilisateur iPhone yooyu yëpp xam nañ dina am mise à bu bees bu génn en cas d' extrême d' extrême urgence li def benn mise à jour accéléré mais Android tey code source am c' est ouvert yenn saa ay développeur mën nañ ko jël étudier ko xool ni ñu koy améliorer et cetera donc boo xoolee sax même application yi foofu la gën a bëri donc loolu tey pirates yi dañuy intéressé aussi loolu dañuy nekkoon fii laa gën a amee mainmise pour mën a am nit yu may yu may yu may piraté donc idée bi fii mooy jéem a xamal nit ñi ne leen tey. Mhm. certes yaa ngi di utiliser Android c'est pas que baaxul na ñu ngi def ay effort ñu ngi def ay effort tay par exemple booy comparer iPhone ñoom dès dès dès nga taal téléphone bi di utiliser am na chiffrement standard. donc benn méthode buy mën a tëj say données sans que nit ki mën a kii mais Android si Android il faut nga activer fonctionnalité boobu di la ko proposer. Mhm. donc am na sax benn étude bu ma doon liir ma gis que ñu ne defuñu ko Android yi nee nañ Android n'est pas euh, defaruñu ko. Mhm. pour mu mun a sécuriser. ok thème boobu dama ko gis ça a été un peu choqué mais genre boo duggee si nit ki lu mu doon xalaat mooy ñoom il vise la masse pas par exemple comme nu iPhone politique mu di def donc noonu la ñun lu ñu mën a def mooy sensibiliser nit ñi parce que tey ñëpp dañuy dañuy technique Euh, def sécurité informatique dugg la def affaire yu graaw yooyu noonu et cetera installer ay pare-feu. waaw parce que des fois des fois da ngay dégg sax booy fekkee ne yow man man def naa euh, sama début sécurité informatique mais des fois da ngay gis ay ay say xarit dañ naan la waaw muy waxal ma ne la ñuy craquer bi nekk ci kàddu wala daa mooy il te parle que de affaire yu crack rek quoi voilà. voilà mm-hmm. sécurité informatique ça au-delà de cela en fait nit ñi leneen la ñuy xalaat loolu parce à cent pour cent loolu mooy erreur bu nga warul def sécurité à cent pour cent existé wu existé wu même iPhone mii di wax ils ont tamit seen seen mm-hmm. seen pardon donc tey nit ki su amee xel boobu noonu rek en fait lép looy télécharger da nga ko war a di télécharger ak xel donc man conseil boobu laa ñu ko jox nit ñi lépp looy def si kii bi da nga ko war a def te lépp rien n'est gratuit sur internet mooy dara yu dara nekkul comme lu naka lañ koy waxee lu gratuit si si internet. donc lépp bu fekkee produit dafa gratuit rek xamal ne yow mi ko jëfandikoo yow la ñuy jaay quoi tu vois. voilà voilà gars yi ñuy wax noonu des fois quoi. voilà alors li nga wax ni dafa am. waaye mhm. li nga wax ni dafa am solo tellement que daf may jox envie ma poser benn question bu ndaw Ibrahima c'est-à-dire. Ibrahima gars yi nee nañ euh, c'est-à-dire euh, euh Gérard na la ay fleur parce que nee na la yéen seen seen téléphone yi dafa dafa am sécurité quoi alors yow Gérard lan moo tax euh, lan moo tax ñu ne yéen seen téléphone dafa am sécurité dafa sécurité quoi voilà. waa mais je je pense que Gérard a xaw na répondre xaw na brosser euh, question bi tuuti ah. alors xam nga comme comme il l'a dit comme ni mu ko waxee moom euh, tey jii quand on parle de iOS il faut savoir que Apple maanaam mooy entreprise bi créer système d'exploitation boobu di iOS moom aussi mooy créer lépp luy iPhone c'est-à-dire dafa di benn entreprise boo xam ne ñoom ils ont la main mise sur. euh, sur hardware bi ak software bi donc du coup euh, contrôler dugg seen téléphone yi lu leen yomb la parce que tey jii supposons que man mii di euh, développeur iOS que je fasse euh, que man defar sama benn application ba bëgg distribuer utilisateur iOS yi déjà il y tout un processus dafa am benn euh, ay ay ay étapes yooyu jaar déjà pour mën a distribuer sa sa application donc déjà Apple dafa am une grosse équipe derrière benn benn équipe bu xarañ boo xam ne bépp application bu war a dem store si euh, système store pour que utilisateur yi euh, télécharger ko ñoon dañuy def review application yi benn par benn. déjà donc kooku noonu foofu noonu il y une vérification manuelle. Mm-hmm. c'est-à-dire il y une vérification humaine. Mm-hmm. maanaam nit mooy nekk si ginnaaw di vérifier yow application bi nga soumettre ndax déjà sa euh, respecte le normes. ndax ça respecte leurs guidelines ndax sa respecte euh, toutes les règles yu ñu ñoom définir pour que application bi mën a public si store bi ba utilisateur yi mën ko hmm. mën ko jëfandikoo. ok c'est-à-dire moom sama yëf maa sama yëf nu ma neex lay doxee ni ma bëgg mu doxee ngeen koy doxalee. exactement exactement et yow soo si tu ne te conformes pas à ces règles là ñoom dañ lay dégager vite fait ah. donc euh, temps yële déggoon nañ fi euh, benn histoire avec euh, benn entreprise là mhm. l'entreprise bi defar Fortnite donc dañ doon utiliser système mhm. voilà dañ doon utiliser système iOS bi parce que ils avaient leurs applications sur le store mais à un moment donné bëggatuñu woon topp les règles que Apple avait déjà définies donc Apple qu'est-ce qu'il a fait il a tout bonnement et tout simplement supprimé application bi ci seen store donc kooku noonu tey jii ñoom ils ont cette mise en fait euh, sur les applications de A à Z donc moo tax il est très très très difficile nga télécharger benn application boo xam ne day liquer say données day day sàcc say données waxuma ne amul. Euh, il en existe. waaw ouais, parce que sécurité 100 pour cent amul fenn voilà parce que après c'est une vérification euh, manuelle humaine qui se fait mais. Euh, il y dafa am benn revue boo xam ne ñoom quand même dañ koy topp dañ koy topp par exemple man euh, j'ai été am am naa ay applications yi ma defar yoo xam ne ils ont elles ont été rejetées mais à maintes reprises dañ ko rejeté lu doon parce que mm-hmm. application yi justement dafa amoon benn benn règle de sécurité bu mu doon benn règle de sécurité que ça soit règle de sécurité wala leneen boo xam ne daf ko doon donc Apple directement daf lay envoyer message ne la Euh, yow sa application c'est pas conforme donc euh, modifier lii wala nga def lii wala nga dindi lii balaa ñu koy. Euh, balaa ñu koy rendre. ok voilà le monde puisse télécharger cette application. waaw mhm. ah ouais mais je pense que gars yi nu mu nu mu tuddati Béra kii Gérard ak ak Ibrahima Cissé mais ñii ñi non waa Apple war nañ leen dégg parce que yéen gars yi marketing ngeen di def mu toll nii quoi. <laughs> non non non gars yi non caba non caba caba non caba am nga sérieux problème parce que fi mu toll nii gars yi non mais gars yi alors Thiaba yow man gis naa ne aussi même euh, même problème bi gars yi di wax nii c'est-à-dire dañuy reprocher Android mm. que Android dafa am problème de d'insécurité parce que sànq Gérard wax na ko nee na des fois am na benn fonctionnalité bu nekk ci biir boo xamante ni soo ko décoché wala boo ko kiiyee da lay permettre nga mën a installer application yoo xamante ni fu nekk la jógee te fu ñu waxee application bu jógee fu nekk rek wax affaire virus wax affaire malsain ak genre yow lan nga xalaat ci loolu yow li mais bien sûr bien sûr damay défendre waa Android parce que ça existe bel et bien si Android. Okay. genre euh, comme li di wax autorisation bi il faut nga autoriser keroog tamit maa ngi développer Flutter mais ayo iOS tamit euh, genre laaj na ma benn autorisation bu ma war a activer ci paramètre bi. xaw ma ndax mhm. euh, Ibrahima xam na fi may waxee genre il faut nga am compte développeur sax mais am na am na benn fonctionnalité looy activer ci paramètre bi pour mën a tester sa application sa iPhone. mm <laughs> Euh, si li mu wax aussi pour validation application yi si euh, kii Apple Store Play Store aussi ñoom dañuy vérifier genre soo dugalee benn APK dina toog une journée ou deux je sais pas pour vérifier si application bi est conforme par exemple soo dugalee benn permission rek benn permission si application euh, permission lecture contact ci application bi rek danaan la nga il faut nga am benn fichier condition d'utilisation ok sinon application bi sa sera supprimé soo ko amul il faut nga dugal lien bi boo xam ni c'est conforme quoi te euh, nu mu tuddati euh, permission boo utiliser tamit il faut nga définir lu tax nga koy utiliser ainsi de suite si condition bi normalement okay, comme ça ñu validé ko sinon dañ ko supprimer man am na yu bëri yoo xam ne c'est supprimé pas oui. conforme à ça genre détail yooyu noonu. donc gars yi ñoom aussi dañuy dañuy sécuriser quoi. bien sûr. Bien mais maa ngi dégg temps yi am na ay problèmes yu am ci àdduna bi c'est-à-dire mooy seen 30 pour cent yeeg euh, waa Spotify ñu ngi kaas waa Epic aussi ñoom ñu ngi kaas mooy ñi defal Fortnite donc xam naa ne yooyu yëpp ay problèmes yoo xam ne nii suñ ko naanee tënk yëpp ci épisode bi dina bëri trop mais c'est sûr que euh, dinaa defaat benn épisode boo xamante ni dinañ dugg ci aspect commercial bi ak aspect euh, yu yeneen yu gën a yu gën a yu gën a yu gën a yu gën a intéressant mais damay dem ci beneen question bi aussi ba léegi ci wàllum sécurité parce que man je pense que ni sécurité dafa am solo trop trop trop trop maa ngi doon wax sànq que ne maa ngi bind sax benn article boo xamante ni dana wax ci affaire sécurité et tout ça mais xam naa xam-xam bi ci wàllu euh, nasaraan bëriwul trop quoi moo tax affaire bi yéex te xam naa sax dama ko war a bind en wolof gars yi jàppale ma quoi pour que affaire bi gaaw génn mais constat bi ma def see simple c'est-à-dire euh, gis naa ne armée de l'air euh, moom moo nekk armée bi aar nit ñi ci ci jaww ji armée de terre moo nekk armée bi aar nit ñi ci jéeri ji marine aussi mooy aar euh, doomu aadama yi ci géej gi alors tey dama gis ne euh, nit ñi ak seen biens yi boo xoolee lépp dafa virtuel dañoo am ay profil virtuel sur internet boo xoolee aussi suñ compte bancaire yi mu ngi nekk en ligne dañuy travailler en ligne maanaam surtout avec période corona bi nit ñi il travaille en ligne am na ay rencontre en ligne mais am na sax aussi lu ñuy wax e-réputation c'est-à-dire nga defal sa réputation sur internet ba nga xamante ni euh, bon peut-être sax nit ñi dañ lay naw wala genre demee noonu quoi donc alors ma question bi ma am envie poser foofu na mooy Gérard euh, ban armée nga xalaat ne ak wala se politique wala administration la wala ñan ñoo war a aar nit ñi euh, ci terrain boobu nga xamante ni doy na war trop quoi muy voilà internet bi ak voilà tout. oh merci pour question bi question bu nga wax am na solo bu baax léegi dañuy jéem a remonter pour xam pour comprendre affaire nu mu demee mhm. donc am na lu ñuy woowee internet internet bu mu ñëwee dafa créer benn genre adduna mais adduna boobu du adduna boo xam te mun nañ koo làmb comme adduna bii ñuy gis euh, mooy monde bu ñuy woowee monde virtuel donc lépp lu si lépp lu si nekk rek genre mhm. muy muy ñun lépp lu ñu xam nii si si adduna dañ si yokk moo cyber donc cyber nit cyber kër yenn saa yi ñu ngi dégg ay cyber gouvernement et cetera et donc tey si même catégorie boobu noonu la ñu gisee ay cyber criminel mooy ñoo xamante ne defkat ñaaw yi yoo xamante ne foofu la ñu nekk donc noonu tamit ngay créer tamit ay cyber militaire ay cyber policier et donc ñooñu dañu war a recevoir formation boo xamante ne dafa mucc si affaire informatique donc ñooñu de nekk ay informaticien donc ñoom seen rôle du question par exemple jàng tiré wala affaire yooyu non non ñoom seen rôle ay informaticien comme ñun ak yow donc ñoom dañoo war a déjà am ay compétence si développement si ci réseau si lépp donc pour mun a comprendre nit ki parce que tey acteur boo xamante ne mooy defkatu ñaaw yi la bëggee song su la songee ça veut dire que xam na ba pare lu mu war a def donc day jël temps mu étudier la donc tey même euh, bu so kooku noonu dina la song dafa am ay phase te première phase bu ñuy wax mooy phase boo xamante ni da nga war a xam nit ki da nga war a xam nit kooku noonu nga war a nga war a affronter donc ñoom loolu lañ ñëkk def dañuy jël sa tàn xam mooy donc tey am na benn date boo xamante ni kenn waru ko fàtte mooy dat date 2007 bi mooy foofu la ñu amee premier forme de cyber attaque bu ñu kii. ok en 2007 donc loolu moo réveillé nit ñi voilà. dans le monde. donc loolu moo réveillé nit ñi. ñu ne genre kon nit mën na taxaw si si ordinateur Estonie dëkk boobu noonu. waaw moo tax léegi boo xoolee Estonie dañoo yeew bokk nañu si ñoo xamante ni ñoo gën a formé wu formé seen nit ñi si affaire cyber. cyber cyber cyber euh, sécurité. Mm-hmm. donc ñoom attaque boobu noonu ñu leen def benn nit imagine nit ak ordinateur mun a rey ay nit ay nit yu réel de lu mu lay wax nii. ok genre Estonie histoire bi nu mu demee. dafa am attaque léegi gars yi nee nañ peut-être waa russe ñoo ko def donc ñooñ bu ñu attaqué dañoo attaqué ay centrales électriques ay hôpitaux ay affaires donc ay xale yoo xam ne dañoo nekkoon si couveuse yoo xam te ni courant moo koy kii ak yooyu noonu amuloon courant donc ñooñu dañoo dee mu ay patients yoo xamante ne dafa amoon ay matériels yu leen di téye pour ñuy nooyi. Mhm. ñooñu tamit amatul courant donc rien que pour wax rek nit ñi. mu ah comprendre que léegi ah adduna bi adduna bi léegi dafa. adduna dafa euh, sax. Euh, te da ngay gis des fois day nekk benn xale bu ndaw wala koo xamante ni euh, du ma wax ko ñàkk fayda la sax parce que ñàkkul fayda parce que déjà am na xam-xam tu vois te xam-xam boo ko amee ñàkkuloo fayda mais xam boo ko amee aussi da nga ko war a diriger ci loo xamante ni lu baax la mais euh, lu nekk ngay gis léegi ci àdduna bi te li ci gën a garaaw dagguma la mais dafay nekk histoire yoo xamante ni des fois dafay am ñu bëri ñoo xamante ni ñooy nekk ci seen ginnaaw man damay wax souvent que ne problème bu am rek. waroo ko liir ci li ngay njëkk gis ni sa kanam rek quoi mais da nga war a rechercher xool ci ginnaaw lan moo war a waral lii lan moo war a tax benn nit jékki-jékki rek bëgg def lu lu ñaaw lu demee nii def ko ay millions de personnes yoo xamante ni defuñ ko dara donc des fois dafay am ay euh, politique yu lalu ci biir wala yeneen ak yeneen yoo xam ne yu bëri lay doon mais euh, c'est très très très très compliqué te li nga wax ni am na solo bu baax a baax a baax. am na solo du pour dagg sax mais tey ñun dañu képp koo xamante ni day évoluer ci monde bi rek. Mhm. dañ la wax que kuy def def def yooyu doon am na trois affaires yu koy motiver. ok soit que pour frauder maanaam pour genre espèce mooy espèce sàcc yooyu noonu. waay wala pour espionner. ok. yaa donc mooy ak beneen boo xamante ne mooy pour état lu muy def donc kan mooy après dafa am ay acteurs kan mooy espionner état mooy espionner donc ak yeneen gros gros gros entreprise yu mag yi entre ñoom guerre boo ñuy def entre ñoom. kan mooy frauder peut-être man wala mystique wala keneen et cetera donc tey par exemple mun naa di liggéey am benn erreur de compte mën a tiit na xaar ma woo benn kii nii mu ñëw modifier chiffres yi donc mooy loolu donc il faut ñu comprendre acteurs yi dafa am ay espion am ay fraude am donc euh, dafa am ay affaires yu bëri yoo xamante ni moo nekk ci biir te nit ñi war nañ ko xam aussi ah c'est hyper intéressant am mm, na dernière catégorie bi mooy ñooy noonu xam te ñoom ñooy saboter sabotage mooy comme lu ñu def eh, externe dañoo carrément foofu noonu saboter ay centrale affaire parce que xam nañ dëkk dëkk yu développé yi ñoom lépp c'est automatisé donc une personne bu demee ba am accès ci système bi rek lu ko neex lay def jël comme ay feu rouge programmeur yoo xam ne par exemple mun na def ñee ñu teg ni feu la alors que ndekete feu rouge la ñeetam tam mu def leen même chose ñu dawal mbëkkante. mu indi ay accident quoi. ñu indi ay accident donc yàgg nañ ko gis ci film yi pour ñun film la. alors que. c'est réel quoi alors non mais loolu am na solo am na solo trop trop mais je sais que ne euh, sécurité comme ni nga waxee rek sécurité à cent pour cent mënul am mais kenn ku ci nekk na jéem a fexe def lay kàttanam pour li nga xamante ni mooy service te yaa ngi jox nit ñi nga sécuriser ko mais aussi euh, derrière aussi nga nekk di def loo xamante ni du nekk euh, safaan ci nit ki nga xamante ni mooy jëfandikoo application bi parce que c'est pas neex c'est pas bien nga jékki-jékki rek gis tey données ci àll bi wala nit ñi di jëfandikoo sa données ci lu lu leen neex xam naa ne loolu dina nekk objectif bu beneen épisode boo xamante ni dinañ gën a wax ci piratage informatique ak yu demee noonu mais damay jàll ci euh, ci Thiaba ak euh, ci Ibrahima pour laaj leen beneen question à dire xeetu application application yi gis nañ ne aussi bëri na déjà euh, sécurité bi mënul am à 100 pour cent mais xeetu application yi bëri nañ épisode bii passé maa loon ko wax maanaam am na ay application native am na ay application hybride am na ay application euh, li ñuy wax ay web app alors ci yéen boo leen di développer application ak seen expérience ak lu ak yu demee noonu ban xeetu application ngeen xalaat ne moo gën a am avenir euh, fi ñu toll nii Ibrahima mun nga commencer je pense Ok, ok. Bah, euh, c'est euh, une très bonne question, question bu intéressante la sax. bon il faut savoir bon déjà man euh, j'ai pas amaguma expérience si euh, développement application hybride je pense que amoon na benn épisode boo xam ne euh, tu parlais euh, si euh, yan type d'application type d'application mobile moo am exactement donc euh, tu avais parlé justement si application hybride yi man mm -hmm. personnellement j'ai pas encore eu amaguma expérience boobu je n'ai eu qu'à développer euh, les applications natives mais quand même maa ngi commencé xool un peu euh, application hybride yi comme euh, comme Flutter React mhm. donc quand même euh, maa ngi siy def euh, samay recherche pour jéem a xam exactement euh, nu ñuy doxee alors déjà pour revenir à ta question mm tey jii soo xoolee la majorité des applications yu ñuy utiliser c'est des applications yoo xam ne dafa connecté wu ak benn euh, lu ñuy woowee un web service maanaam dafa connecté wu euh, avec l'internet pour euh, récupérer ay données pour manipuler ay données hein, pour afficher ces données-là, n'est-ce pas Exactement. Comme euh, genre euh, Facebook wala Instagram affaire yooyu noonu donc euh, si ginnaaw dafa am benn serveur boo xam ne moom moo leen di jox données yi alors je trouve que tey jii bu fekkee ne danga nga war a développer benn application mobile boo xam ne ça fait exactement aussi la même chose maanaam application bi compliqué wul trop ah am nga sa benn serveur derrière boo xam ne euh, say say données ñi ngi fa ba pare yow da nga bëgg a récupérer données yi rek di koy afficher wala di def euh, ay ay traitement envoyer des données ci serveur bi serveur bi manipuler données yi envoyer waat les bi affaire yooyu noonu donc pour des applications je vais dire simple comme ça je pense que bu fekkee ne parce que ça dépend tamit si euh, si budget euh, si budget ak su nit ki. exactement ah, bu fekkee ne benn benn benn Ibrahima Ciss la boo xam ne tey jii dafa bëgg a benn solution mobile am ah, mais moom par exemple amul équipe euh, iOS amul équipe Android. donc tey jii utiliser benn solution hybride kooku noonu je pense que c'est une bonne solution. Ah. ok surtout que léegi généralement généralement je dis bien application mobile c'est juste dañuy dem récupérer afficher euh, euh, si interface bi affaire yooyu noonu donc du coup euh, foofu noonu utilisation bi je pense que mën nañ utiliser de l'hybride pour le faire hein, comme des solutions comme React Native des solutions comme comme Flutter bon ñaar yooyu laa xam ne ñoo gën a am doole fi mu ne ni il existe aussi d'autres solutions comme Ionic et je pense même que am na aujourd'hui il existe aujourd'hui beaucoup d'applications au Sénégal qui ont été développées. Mhm. ak euh, euh, ah solution. ah oui ah oui dinañ si dugg sa dinañ euh, ci dugg léegi mooy ci écosystème Sénégal bi dinañ ci dugg léegi pour xam. lan moo am quoi si si. Mhm. voilà mais application yu bëri yoo xam ne des millions d'utilisateurs actuellement ils l'utilisent mais ça a été développé avec ces applications euh, avec ces euh, technologies hybrides là n'est-ce pas donc je trouve que pour juste tënk wax bi je trouve que bu fekkee ne tey jii euh, amoo ressource yu bëri maanaam amoo développeur yu bëri ah euh, nga bëgg a benn affaire wala bëgg ka développer très rapidement ah, je pense que donc yooyu noonu euh, c'est c'est une solution envisageable maintenant nag soo amee une équipe par exemple de dix développeurs mobiles ah am une équipe iOS fii am une équipe Android fii nii tey jii je pense que mën nga dem mën nga dem en utilisant une une solution native c'est-à-dire euh, tu peux utiliser mën nga utiliser Swift ah pour développer avec euh, iOS et utiliser Kotlin wala Java pour développer sur Android maanaam des développement euh, natifs mais ce qu'il faut juste ñu comprendre aussi c'est que développer généralement je dis bien développer en en hybride tey jii dafa am un coût comme développer en natif nu mu amee coût tamit développer en natif coût financier la am. ah ak euh, ak euh, benn coût boo xam ne c'est un peu temps de développement bi parce que si ñaari plateforme quand même ngay développé tandis que développement euh, développement hybride coût bi mu mën mën a am mooy du moment où c'est pas euh, c'est pas natif tu utilises les composants natifs donc am na benn certain coût de performance en fait Okay. Donc euh, généralement généralement les applications euh, hybrides sont moins performantes bon performant day koy dégg nii rek parce que am na ay performance yoo xam ne utilisateur bi du ko sentir trop ouais. mais généralement ils sont moins performants que les euh, que applications natives donc loolu tamit lu lu jar a bàyyi xel ok voilà donc euh, su amee euh, lu mu si dolli ah non Thiaba Thiaba mu wax mais mystique foog mu wax ci euh, ci domaine boobu waay <laughs> alors qu'est-ce que yow lan nga ci xalaat ci loolu waaw euh, waaw man li ma xalaat si genre application natif yi application hybride bon man li ma gën a li ma doon gën a def avant mooy application natif Android purement Android Java Kotlin mais aprè si la découvrir euh, Kotlin et c'était c'était vraiment magnifique parce que da ngay am possibilité am euh, benn version Android fii am benn version iOS fii ngay testé fii muy jàll ngay testé fële muy jàll ngay kontaan loolu loolu dara dàq ko. ah oui ah oui ça c'est génial ça ça c'est génial <laughs> loolu dafa neex quoi. loolu dara dàq ko mais comme li Ibrahima di wax performance bi aussi ak tamit utilisation euh, système bi carrément ci euh, nu mu sax. fonctionnalité native yi quoi des fois day am manquement et tous ces trucs là. mais euh, c'est c'est bon de de faire les bon de faire les deux. ci man moom mooy gën quoi comme ça. mooy gën nga def ñaar yëpp quoi. voilà nga def ñaar yëpp mooy gën. comme ça di nga am possibilité euh, xam faay yëpp euh, ainsi de suite. Euh, lan la quoi alors mais je pense que yéen wax ngeen lépp Gérard yow am na loo ci xalaat ci ci xeetu application mobile yooyu noonu voilà. non expert moom wax nañu lépp. ah oui amul dara looy doole. <laughs> non jàng naa ci lu bëri sax fi mu toll nii ah oui franchement alors euh, beneen point bi nga xamante ni bëgg naa ñu waxtaan ci nag moo ñuy permettre ñu dugg ci Sénégal wala sax Afrique alors man li may euh, posé mooy Gérard boo xëyee suba teel ban application ngay njëkk utiliser. bon man personnellement su ma xëyee suba teel sama LinkedIn laay ñi ko xool. LinkedIn ah. waaw. alors Ibrahima Cissé. boo xëyee looy njëkk xool. Euh, alors man du moment où j'essaie d'être euh, beaucoup organisé euh, am na benn application bu ñuy woowee Fantastical. Euh, Fantastical euh, c'est disponible que malheureusement xam nga ñun dañ ñu siis euh, wax na ko léegi c'est disponible que sur les plateformes Apple c'est-à-dire sur iPhone iPad et sur Mac mais c'est une application qui te permet de voir li nga war a def ci journée bi avec différentes réunions yi nga am ci journée bi ainsi de suite donc Fantastical Fantastical bon dinaa envoyer waaw dinaa envoyer lien bi tout de suite Euh, merci beaucoup c'est hyper gentil alors Thiaba yow boo xëyee ban application ngay njëkk euh, xool. man nag ça dépend. Hmm. man notification laay xool fi gën a bëri notification rek foofu laay cliquer. <laughs> notification Twitter wala notification WhatsApp. Twitter wala WhatsApp. entre ah les bon? deux quoi. Ah, voilà. ah c'est génial c'est génial alors man su xëyee euh, li may njëkk xool sama Gmail la. su ma xoolee sama Gmail ba pare euh, directement maa ngi xool sama notification WhatsApp yi ndax aw ma ay message après euh, maa ngi dem euh, Twitter xool ndax y a des après ma dem Presse Citron xool nouveautés yi am ci àdduna bi et tout ça alors loolu yëpp pour wax lan c'est-à-dire dama seetlu ne ñun bu ñu xëyee application yi ñu utiliser yëpp pratiquement fii ci Sénégal wala Afrique jógewul fii nii quoi ay nit ñoo ko defar ci biti jox ñu ko ñu koy utiliser alors man question bi ma am envie poser ku ci nekk nga mun ci répondre ah. lan mooy place su Sénégal tey ci proposition ay application mobile yoo xamante ni waxuma application mobile yoo xamante ni da nga benn yoon ci weer bi ci mois bi wala genre bi mais ay application yoo xamante ni nit ñi war nañ ko soxla chaque jour pourquoi pas comme ni Chine def avec WeChat ak yu demee noonu Sénégal wala Afrique amuñ seen propre application yoo xamante ni moom la ñuy utiliser chaque jour. wala nga gis ay start startup Sénégal yoo xamante ni dañuy développer benn benn euh, nan la application bi tudd léegi sax bi Ibrahima Cissé waxoon. Euh, fantastical fantastical. voilà ñu développé benn fantastical boo xamante ni Ibrahima da koy bàyyi ah, ah mu tudd neex a mu tudd neex a neex ah wala genre demee noonu quoi je sais pas mu koy utiliser chaque jour alors lan ngeen xalaat ci euh, point boobu noonu quoi est-ce que manque xaalis la manque idée la wala lan moo waral problème boobu noonu fii ci Sénégal ak Afrique Gérard je pense mën est-ce que sama expert ko répondre après ma tij. ayib allez allez comme ni mu la neexee rek allez kon Thiaba euh, waaw loolu moom problème la euh, fii si Afrique xaw Sénégal lañ koy mën a wax. Mhm. si man problème bi lenn la mais des fois dañuy defar ay application extraordinaire mhm. première version yi ñuy déployer mën na am benn problème bu ndaw benn genre bëgg utilisateur bi installé ko mu gis bëgg boobu ne bon lii am na bëgg ainsi de suite. gars yi duñu def meta duñu def mise à jour noonu la ñuy bàyyi application yi gars yi après dañ koy désinstaller du am benn njariñ. ok man si man soo defee benn première version da ngay xool suivi bi xool euh, utilisateur yi lu ñu si wax yow nga jéem a def amélioration côté boobu noonu. Mm-hmm. versioning aussi dafa am solo bul def benn version rek stagné foofu. Facebook man damay kontaan di gis ay version je sais pas cent et quelques ou bien deux cent et quelques loolu damay kontaan fait ah oui boo def leen application design da nga ko war a di jéem a améliorer changer user experience bi nga xool ko genre yooyu daal man si man loolu mooy doxal application deuxième point bi mooy communication dañuy defar benn application bu extraordinaire boo xam ni gars yi war nañ koo mën a utiliser mais duñ si communiquer ni mu waree. Mhm. si man loolu mooy faay bi comme am na benn application aussi bu ma doon utiliser. que j'aimais bien je ne sais pas euh, Tanibi je crois. ah tali boobu c'est pas application xaw ma na amoon na application mobile mais application web. tali bi am na benn fonctionnalité boo xam ne dalay wan bus bi fan lay jaar exactement genre su ma doon jógee sama fu may dem ban bus mooy disponible fonctionnalité boobu chaque jour su ma doon dem fenn dama koy utiliser xool ban bus mooy dem fii ba fii mais léegi ça n'existe plus et c'est c'est vraiment malheureux gis naa tamit euh, euh, Wigo je crois utiliser woon même fonctionnalité mais léegi gisatuma ko. loolu tamit genre détail yoo xam ni développeur d'application wala sa porteur de projet yi war nañ see bàyyi xel comme ça gars yi mën a utiliser application Sénégal ou bien africaine. ok alors euh, Ibrahima yow loo ci xalaat yow. waaw euh, je vais un peu damay rejoindre un peu li euh, li soxna Thiaba wax je suis d'accord avec euh, yenn ci point wam yi surtout à savoir euh, la communication mm -hmm. je pense que tey jii euh, c'est un des problèmes majeurs aussi ici euh, ici en Afrique bon je vais dire au Sénégal je vais me limiter au Sénégal dans un premier temps parce que tey jii on a d'excellents développeurs qui qui savent développer n'importe quel type d'application. Ça, euh, on n'en disconvient pas. Mm Mais après, je pense que il n'y a pas euh, amuñu boobu noonu bu ñuy permettre tey jii ñu vulgariser suñu suñuy application mhm. benn exemple bu ndaw bi may joxe mooy euh, Chaba elle a parlé des applications de transport comme Wigo avec une autre application moi à un moment donné je pense que c'est même en 2020 que j'ai euh, là apparaît benn application pour un client Ouais. N'est-ce pas C'est une application euh, qui, euh, comme, euh, comme Google Maps, je vais aller, je vais un peu leur faire de la publicité, mais application bi comme Google Maps là, hein, okay. euh, fi nga war a jaar affaire yooyu noonu avec des dialectes locaux. Okay. Hein? Okay. en séeréer en wolof euh, en bambara en pulaar lépp laa lay wax ni tu vois langue langue yëpp moo nekk ci biir daal. langue langue langue fii yëpp mi ngi ci application ok donc yow tey jii soo connecté si application bi ne dama bëgg a dem dama bëgg dem point nangam ah tu vas choisir une voie bu lay guider ba point boobu noonu. que ça soit en wolof en séeréer en pulaar en bambara et cetera la toutes les langues et dialectes quand même yu ñuy wax fii nii au Sénégal ñu ngi déjà si application boob mais application bi doo ko dégg pourquoi doo ko dégg c'est parce que ils n'ont pas fait la communication. ok et aujourd'hui c'est une application boo xam ne ça marche c'est fonctionnel. mais je trouve que tey jii su amoon une communication derrière dina marché dina ça pourrait décoller et c'est un produit purement local c'est euh, tey jii c'est c'est un produit c'est une application boo xam ne c'est moi qui l'ai développé de A à Z mais quand même la communi la communication n'a pas suivi d'accord donc il y a cet aspect euh, communication beneen aspect bi mooy le mindset euh, notre mindset. Mm-hmm. tey jii. alors alors leeralal leeralal nit ñi lan mooy mindset voilà lan mooy mindset. waaw mind set euh, excusez-moi du terme mindset mooy juste euh, état d'esprit ah mooy juste état d'esprit xaw ma nu ma koy traduire quand même si si wolof nga jàppale ma si. mooy tolluwaay je pense que mais xalaatee. gën a ay ci wolof gis naa loolu. quoi voilà je pense que mooy tolluwaay sa xalaat euh, say gis-gis sa yu demee noonu quoi voilà. Uh-huh. E-, exactement exactement. donc set boobu noonu tey jii ñun africain on n'a pas ce set la par exemple dit. télécharger disons ay applications payantes déjà man tey jii étant africain étant sénégalais su ma nee je vais me lancer dans le développement dans le indi apps maanaam le développement euh, may développer ay applications pour mon propre compte mais par exemple Afrique laa koy jaay kooku noonu je serai mais euh, très malheureux juste ba ba ok. parce que je sais que africains yi naruñu jënd samay application et ça c'est malheureux par contre mën nga tey jii développer des applications pour des africains mais ñoom duñ ko jëfandikoo donc c'est un peu c'est un peu décourageant mooy bi ma lay wax nii mais euh, n'empêche quand il ya a vraiment un écosystème derrière euh, gars yi fii nii ñu ngi commencer defar des applications yoo xam ne utilisateurs yi ñu ngi koy utiliser à grande échelle euh, je peux citer l'exemple de de de Kobiri qui a été développé par Souleymane Sidibé un, Sénégalais et le produit est actuellement euh, actuellement utilisé par d'autres Sénégalais aussi yoo xam ne ñu ngi siy gis seen bopp Okay. tu donc am na yeneen ak yeneen ak yeneen application mais moi je pense que déjà ces deux problèmes mooy problème euh, état d'esprit boobu noonu mooy mindset bi et le problème euh, de communication parce que t'as beau développer benn affaire une solution qui marche mais après si la communication et le marketing euh, si ginnaaw ça ne suit pas ton application va pas décoller ok ok alors Gérard yow lan nga xalaat ci affaire bi comme danga nga bëggoon xaar gars wax p pare nga doon tënk <laughs> gis nga gis nga gars daal développé nañu presque lépp ah, mooy lu may wax man lu mu si doole mooy euh, ñun boo xoolee actuellement même am na benn tendance bu ñu gis léegi gars yu nekk euh, bitim réew dañuy recruter dañuy ñëw fii pour recruter ay jeunes développeurs si Afrique genre dañuy ne l' Afrique est talentueux am nañu ay nit yoo xam ne sont capables def ay développement yoo xamante ne mooy am na ñeneen sax ñu muus léegi yuy créer société du sous-traité fii nii. ay application yoo xam dañu koy utiliser au niveau international donc dafa am lenn lu Ibrahima wax lu am solo mooy ñun africain yi genre sa moroom africain bu defaree dara rek yow tu te dis que non loolu mënul baax. ok alors que tey bu nekkee moo tax yeneen société yu mag léegi wala yeneen société yu am yu am doole bi dañuy indi benn directeur exécutif tubaab ci marketing bi genre bu ñu développé ba pare rek moom moo koy présenté genre ñun suñu esprit bi daa mel dañ ko. dañ ko yar yar boo xamante ne de telle sorte que ñun bu ñu defaree application rek sa veut dire que application bi genre dañu ne non mënul nekk comme application beneen. ok donc problème problème de problème de gëm sa bopp la quoi. as voilà assimilation que chinois yi lu ñu réussir mooy tey ni chinois yi dañoo réussir leen loo xam dans tous les aspects tey boo nekkoon ci benn koñ nii chinois yi mu am par exemple benn boutique chinois mu am foofu dix boutiques ay yeneen nationalité chinois yëpp ci boutique chinois bi la ñuy jëndee. donc ñun problème boobu noonu la ñu am mooy problème boo xamante ni africains yi dañoo war a gëm seen morom africain gëm que lu ñuy développé mën na amal njëriñ c'est pas parce que développe dañ ko développé si fii suñu continent africain rek baaxul non bu respecter normes internationales yi ñëpp mën nañ ko utiliser parce que comme ni ñuy waxee rek l'intelligence maanaam mooy xam-xam ñëpp a ko mën a mériter képp koo xamante ni jël nga caractéristiques yooyu noonu rek yow adduna bi moo la moom. donc pourquoi pas donc il faut que ñuy gën a communiquer si loolu te seetlu naa ñun information dañoo ñemee nëbbatu bi tëju bi genre dañuy ne ñun information dañuy nekk ci ñu ginnaaw ordinateur di def mais il faut que yenn saa yi ñu mën a nekk ay modèle ñu nekk ay model ni ñi di ñu mën a gis ñuy communiquer pour nit ñi mën a xam mais nit ñi bu ñu xamulee dañuy tëju nekk seen côté tamit kenn du comprendre donc loolu la say amoon pour doole ci alors je pense que vous avez yéen wax ngeen lépp déjà déjà Thiaba nee na moom problème de suivi la c'est-à-dire gars yi waroon nañ di def ay version yu bees pour que yeneen euh, application du génn beneen version di génn mais aussi problème de feedback c'est-à-dire fexe ba li nga xamante ni moom la nit ñi jëfandikoo euh, constat yi ñu ci def gis-gis yi ci am nga mun ko utiliser pour mun a gën a defaraat application bi mu gën a baax mais aussi wax na aussi problème de communication c'est-à-dire war application yi pour que ñi xam ko mën di ko utiliser mais aussi xam lan lay jëriñ parce que application yi dañ koy defar ba pare mais nit ñi duñ xam exactement lan lay jëriñ quoi donc loolu mooy nekk euh, problème bi Ibrahima aussi même chose la wax ah cest maanaam tolluwaayu nit ñi euh, tolluwaayu seen xel je pense euh, ma jàngal wolof na aussi problème de communication même chose aussi le Gérard wax maanaam Sénégalais yi war nañ africains yi d'une manière générale war nañoo gëm seen bopp pour di mën a proposer application yoo xamante ni nit ñi dañ koy utiliser voilà bu sa moroomu ab Sénégalais dafay benn application yow aussi nga mun ko ñëw di ko euh, jëfandikoo alors léegi man question bi ma envie euh, posé waat euh, ñu waxtaan ci mooy ban solution concrète ngeen xalaat ne concrète ngeen xalaat ne war nañ ko mën a def pour que sénégal yi développeurs yi mais attention du développeur yi kese parce que man je pense que ne mun na am boroom xam-xam boo xamante ni du sax informaticien mais am xel mu rafet am xel mu ñëw xel mu sell am benn idée dem waxtaan ci ak ay informaticiens ñu àndandoo développé ko en groupe maanaam ay start-up donc ban xalaat ngeen am ne suñ ko defee ci Sénégal moo xam muy autorités yi moo xam muy euh, élèves yi surtout élèves yu ndaw yi nekk ci suuf ak étudiants yi buñ ko defee euh, gouvernement bi jàppale leen wala nit ñu am xaalis ñu nekk Sénégal jàppale leen. de telle sorte que suñ ko defee euh, écosystème bi dina gën a jëm ci kaw et dinañ proposer ay applications yu extraordinaire ba suba sax euh, Ibrahima Cissé dootu utiliser euh, application boobu noonu mais dafay utiliser boo xamante ni made in Sénégal lay doon quoi lan ngeen xalaat ci loolu. bon comme sànq dama bàyyoon gars yi wax ma ñu ko wax après gars yi terminé. vas-y voilà donc man dama am genre. concept boobu noonu ma am xaw ma concept nu ñu koy waxee ci olof genre hmm. gëm-gëm boobu noonu quoi ma am genre damay ne ñun par exemple suñu bëggee par exemple di développer application fu ñu mun a xam réalité bi ba pare réalité bu ñu confondre donc du question dañuy développer application pour pour nii mais appli loolu mooy loolu moo tax startup yu bëri di daanu du ñu am par exemple suite parce que dañuy développer rek pour développer non dañoo war a toog xalaat par exemple si secteur yi xoolal agriculture xoolal secteur commerce économie wala beneen secteur fii nii ñu xalaat lan la ñu mun a def. pour mun a dimbali secteur bii nii. ñu jëlaale en compte réalité yi réalité yu am genre il faut nga dugg sur le terrain nga gis diw monsieur diw si li ngay liggéey lan lan ak lan lan donc tey suñu la créé woon benn application buy def nii ak nii ak nii est-ce que dina la dimbali si nii ak nii mais pas jékki-jékki rek créer benn application ñëw proposer ko nii nii nii nii ñu ne la ah waaw baax na rafet na def nii au bout de kii ñu gis limite application bi donc loolu loolu la ñuy war a gën a xalaat naka la ñuy war a mën a adapter. lu ñuy créer maanaam adapté euh, application yi si mm. besoin population bi. cest à nga dem xool nga cest à nga dem xool population bi ban problème lañ am est-ce que problème bi sax mën nañ nekk ne sax problème bi nekkul application mobile moo koy defar ah mën na nekk sax benn site web wala benn robot wala benn affaire ah voilà ça dépend donc mooy nga xool problème bi. alors yow Ibrahima Cissé euh, wala Thiaba yow lan nga ci xalaat ci ci domaine boobu ne bu ñu ko defee euh, écosystème bi dina gën a nekk ci kaw. xaaral ma bàyyi soxna Thiaba wax honneur aux femmes. waaw soxna Thiaba acca vas-y Thiaba. j'espère que doo ma mere Thiaba. <laughs> même pas même pas amul benn problème. aywa vas-y vas-y damay damay rejoindre euh, Gérard wax rek genre étude de marché bi dafa am solo xool na euh, premièrement projet la quoi application benn projet boo xam ni nit ki da koo am pour résoudre benn problème boo xam ni nit ñi am nañ ko. Euh, da nga war a tracer sa projet xool tamit utilité bi nag utilisateur bi dañ koy war a utiliser deuxièmement su dee yow mënoo développement nga ut benn équipe boo xam ni se dynamique mun nañ développer application bi de A à Z suñ ko développé ba pare dafa war a am suivi gars yi loolu la ñuy loolu lañ doon def en fait du ñu am suivi genre maintenance beeg sécurité bi comme genre général yi ñu xëcc ko xool nan la ñu mën a améliorer application bi duñ ko def communication bi dama koy répéter encore communiquer il faut communiquer il faut communiquer ut benn stratégie boo xam ni c'est c'est bien communiquer ci euh, application bi xool tamit xam nga même soo communiquer te amul njëriñ tamit euh, nit ñi tamit amul benn sens tamit loolu yëpp tamit euh, c'est c'est inclus en fait c'est ça waay waay ma bàyyi parole bi ah, a Ciss comme ça. Ah, voilà Ibrahima turandoo acca yow lan nga xalaat ci domaine boobu ak lan lañ war a mais nag tey li ma jaaxal mooy dégguma gars yi wax affaire financement parce que tey sama gars financement am na solo de ah wala boog. bëri na solo lool sax. bëri na ah, solo xaalis de. mais xam nga xam na xam nga nous on est actuellement en train de parler d'une euh, perspective développeur ngeen baal ma nag. exactement waaye si si c'est vrai. en mm-hmm. tant que développeur la ñuy la ñuy la ñuy waxee fi quoi. dëgg la dëgg la ça c'est vrai. pour rejoindre samay samay collègues Gérard et euh, Soxna Thiaba en fait je pense que. dénominateur commun bi maanaam luy tënk problème bi mooy le dénominateur commun plutôt mooy euh, problème c'est-à-dire tey jii solution yi defar yëpp que ça soit les applications mobiles que mu doon application mobile wala logiciel wala leneen lu mu mënti doon en informatique tey jii c'est pour euh, c'est pour euh, régler benn problème nous sommes d'accord benn problème qui est bien précis. tey jii man mën naa am frustration j'ai essayé de le faire à maintes reprises mën naa am benn frustration utiliser benn logiciel boo xam ne. ça me frustre maanaam euh, utilisation bi dafa xaw a compliqué. Mhm. wala ni ma bëggee mu mu doxee doxeewul noonu. donc man en tant que développeur en tant qu'ingénieur man naa essayer proposer beneen solution. ok boo xam ne euh, je vais je vais proposer benn solution boo xam ne dinaa mën a utilisateurs yi dinañ mën a utiliser sama application d'une manière mais très fluide ah dinañ ko mën a utiliser très aisément donc je pense que déjà pour ñu am euh, de très bonnes applications bon il faut qu'il y par exemple un problème mais bien défini boo xam ne moom la ñuy jéem a résoudre je pense que application yi réussir yëpp fi mu ne nii que ça soit Facebook wala yeneen application yu mag yi Snapchat mm -hmm. euh, Instagram and so on mhm. ñoom dañu ñëw pour résoudre un problème bien défini donc tey jii gis nañ ne application yooyu noonu ça te connecte avec le reste du monde ça te connecte ak say mbokk yoo xam ne ñi ngi États-Unis ñii ñi ngi France te pourtant yow yaa ngi Sénégal n'est-ce pas donc il y a ce, il y a il cette frustration là problème bi ñuy jéem a résoudre mais après li ñu war a xam tamit mooy. Mhm. application du da ngay da nga ne développeur nga rek. tu peux développer certes mën nga développer application bi de A à mais dafa am lu ñuy wax benn processus maanaam benn process ah application soo toogee je pense que li gën a yomb li gën a yomb mooy avoir benn idée application idée application moom ku nekk mën na ko am sama doom un enfant un enfant de cinq ans mën na am benn idée pour développer application ça c'est la partie la plus simple okay. hein? et peut-être même la partie qui est euh, la la la la plus euh, compliquée euh, peut-être mooy développement application bi développeur bi peut-être mën na ko defar mais xam nga application tey jii soo amee sa idée application euh, et que tu veuilles application bi marché dafa am benn procédure benn procédure maa ngi maa ngi ko doon wax léegi. maanaam war nga war nga xalaat si lépp luy designu application bi. maanaam application bi nu mu war a nduru li mu war a mel ah war nga war nga xalaat lépp luy user experience maanaam expérience utilisateur bi maanaam euh, nit ñi nu ñuy utiliser application bi ndax application bi soo ko mettre en place dina fluide ndax application bi après euh, menu bi. Euh, ndax euh, ndax c'est c'est facilement kii euh, ndax mën nañ si accéder facilement affaire yooyu noonu tu donc loolu la ñuy wax user expérience maanaam expérience bu utilisateur bi di am si application bi ah ok après il y a partie ingénierie boo xam ne développeur bi moo koy ñëw def derrière après il y a cette partie euh, développement euh, déploiement plutôt après tamit il y a partie suivi mooy cabal li muy li muy li mu doon wax sànq soxna cabal ah parce que il ne suffit pas que nga développer benn application bay ko noonu si store yi après tu ne reviens pas pour faire des mises parce que bépp application boo gis day am après ay bug ay bug yoo xam ne yow durant le développement yow gisoo ko woon ah et que ces utilisateurs là utilisateurs yi télécharger application yi peut-être ñoom ñoo koy gis ñoom ñoo koy remonter donc après soo deful suivi bi utilisateur yooyu noonu tout le temps dañuy frustré wu parce que ils verront même problème ah Exactement. Donc, quand, il voit, quand un utilisateur voit le même problème toujours, toujours, il a envie d'aller chercher des alternatives maanaam day dem seeti yeneen application yu ndiru ak yow sa application bi nga développé pour pouvoir utiliser application boobu no mm -hmm. tu vois donc il y a toute cette procédure tout ce processus boo xam ne il faut quand même ñu bàyyi si xel et que tant que benn def si manqué rek ah que ça soit euh, depuis depuis design bi user expert user bi si développement bi ba si déploiement bi et euh, support bi. Mhm. benn su si manqué rek. Mhm. Euh, application bi en fait euh, du la bon ça va t'amener après des surprises. ok maanaam du dina la indil ay surprises yoo xam ne yow xaaroo ko woon donc étant développeur waroo xalaat kese la partie développement parce que loolu mooy sa domaine d'expertise. ah mais da nga war a xalaat quand même si si process boobu noonu. yi domaine yëpp mm-hmm. voilà quitte à ce que nga xool sur ce réseau euh, Twitter wala voilà, sur LinkedIn comment t'associer avec un designer par exemple tu vois man je le fais très souvent euh, du moment où je fais les deux quand même du moment où euh, je sais designer ou je sais développer aussi parfois ma liggéey ay développeur et parfois aussi ma liggéey euh, ay ay ay designer tu vois donc toujours après nga xool domaine yoo xam ne yow tu n'es pas à l'aise là-bas nga xool benn kenn koo xam ne dans ton entourage il a t'aider pour a ce que vous fassiez benn benn affaire boo xam ne domaine ça va ça va quand même décoller. ok loolu laa amoon. ah euh, li nga wax yëpp c'est vraiment amul pratiquement man amul sax lu ma ci teg quoi xanaa juste pour wax que rek ne euh, li ngeen wax noonu yëpp dafa am solo. parce que li ci mën a jàpp mooy il faut que développeur yi ñu xam ne ils sont xamuñ lépp quoi tu vois cest à ñu ubbeeku ubbeeku ak designer yi ubbeeku sax ak sa euh, ak sa xarit bi nga xamante ni mu ngi ci koñ bi wala sa rakk bi nekk ci kër gi nga war a defar benn application laaj ko xalaatam wan ko application bi mu wax la ne la ah euh, lii de boo ko defoon nii gisuma ko bu baax wala genre bi noonu nga mën a defaraat ko mu gën a baax donc il faut daal euh, dafa pour nga defar application dafa laaj xam-xam yu bari donc nag bul xeeb xam-xam yi demal sur internet. jëndal ay livre defal lu la neex pour am xam-xam bi nga xamante ni ñoo war a mën a dajee àndandoo pour nga mën a defal benn produit boo xamante ni su génnee nit ñëpp dañ koy euh, dañ koy adopté complètement mën ko utiliser parce que parce que aussi euh, lu baax yombul lu baax yombul foog nga def ci sa xel def ci sa xol def ci sa temps def ci lépp pour que mu euh, pour que mu mën a baax alors je li ma mën a wax daal mooy application mobile li ñu ci mën a wax bëri na trop te Olof Ndiaye aussi dafa am benn affaire bu mu wax nee na li duuf ci nag bi xajul ci cin bi alors donc loolu su ma ko waxee war ngeen comprendre ne émission bi pratiquement dañ koy yemale fii parce que nag am na yeneen sujet yoo xamante ni war nañ ci mën a waxtaan mais dañ koy bàyyi ba beneen yoon ci yeneen épisode ci yeneen jamono gën ci waxtaanaat alors li may wax mooy Gérard fan la la nit ñi mën a fekk sur internet pour mën a euh, échanger ak yow parce que tey xam-xam yi fi wax bëri na trop voilà. bon merci merci kontaan naa trop déjà ci invitation bi merci di la di parce que vraiment c'est toujours intéressant nga nekk ak say naan naataango ngeen di waxtaan si ay sujets yi man genre sujet moo may neex donc man ku ma bëgg fekk di ma fekk LinkedIn maa ngi foofu ak sama tur bu gudd bi ah Gérard Joseph Francisco Dagosta. ok ok dinaa def dinaa def lien bi ci suuf ah yéen gars yi def seen lien ci parce que xam naa ni après épisode bi gars yi dañ leen ñu soxla quoi ça c'est sûr. après maa ngi Facebook tamit ak G Dagosta. ok Gérard Gérard maa ngi Twitter tamit comme ak Instagram. Hmm. même profil en route SN. mais euh, mais attends Gérard pourquoi pourquoi route SN lu tax route SN bi quoi. moom <laughs> su ko naree su ma naree wax loolu est-ce que temps bi du dem. <laughs> kon bàyyi ñu def ko épisode <laughs> spécial après épisode spécial la koy def. voilà beneen surnom surnom aussi bu ma bëgg laajte lan la war a signifier quoi mais benn épisode lay doon. voilà gis nga voilà. alors Thiaba Thiaba Thiaba Thiaba waxal ni yi fan lañ la mën a fekk sur euh, internet euh, nga tàggatoo aussi. ok merci Ibrahima man euh, maa ngi LinkedIn sous le nom de Thiaba Diop sama tur euh, maa ngi tweet euh, Mimistic 1 maa ngi Facebook tamit am na benn page Facebook. ok soo defee mystique. Uh-huh. au lieu de Mimistic c'est mystique. mystique ok. maa ngi Instagram aussi Mimistic. Diop. ok ça voilà je crois que yooyu rek nekk. ok dinaa ko def si euh, ci lien ci euh, description épisode bi comme ça nga xam ne gars yi dañ leen mën a euh, gis directement alors Ibrahima fan la la gars yi mën a fekk pour sonal la ko waaw waaw waaw man day ñaari réseaux sociaux yi may gën a actif bon benn sax laay wax bi may gën a actif c'est Twitter. Uh-huh. Euh, sous le nom de Bionixis, B-I-O-N-I-K-6 en chiffres. Et euh, sur LinkedIn aussi, euh, c'est la même chose. c'est mon handle Bionixis, B-I-O-N-I-K-6 en chiffres. Alors, xawma sax man tur boobu fu mu jógee ah je créé comme ça quand quand j'étais ado alors. voilà quoi. ok affaire <laughs> directement quoi. voilà bi ngi noonu. <laughs> ah oui ça c'est que mais attends Mimystique waxoo ko gars yi fan la Mimystique jógee ah. <laughs> bon bàyyi ma jox la exclusivité bi. ah, merci beaucoup merci beaucoup tey ñun ñoo am exclusivité bi quoi jaajëf allez vas-y. ah Mimystique c'est simple c'est Mimi pour dire un tour féminin quoi. ok Mimi. éthique okay. et efficience des technologies de l'information et de la communication. waaw waaw waaw. ma nekk première année. Ouais. laa ko laa ko créé noonu que bon dama dugg première ane rek informatique neex ma suñu classe STIC la woon bon. ok ma jël nom bi <laughs> voilà c'est ça. ah ouais non yàgg naa dégg ay pseudo mais bii. c'est spécial quoi déjà dafa boolante wala beauté ba pare boolante technologie. non euh, IT rek moo mën lii quoi n'est-ce pas c'est un peu mystique quoi. waaw ah oui c'est mystique oui encore c'est mystique encore waaw non non mais. non mais. alors franchement man aussi maa ngi leen di remercier bu baax incha allah dinaa def euh, seen euh, contact yi ci description podcast bi comme ça képp koo xamante ni bëgg na leen contacter pour échanger ante ak yéen parce li ngeen fi wax tey bëri na euh, xam-xam lu bu bëri boo xamante ni man mënu ma ko wax yépp ci épisode yi parce que man sama objectif lenn rek la fexe ba nit ñi am benn aperçu rek ci li nga xamante ni moom la ñu xam ci wàllu informatique pour que ñu mun am benn réveil de conscience effet de conscience pour mun a proposer ay mun a wax ne ñoom aussi war nañ mën a def ay affaires test bi nekkul pour informaticiens yi kese ah, parce que man je me dis que sax informaticiens yi xam nañ ba pare mais man am naa ay rakk am naa ñoo xamante ni ñu door a dem université bees xamaguñ ban orientation la ñuy jël am na ñoo xamante ni sax ñu ci gën a suufa suufa suufa même je pense que sax war naa dem ci préscolaire yi maanaam jardin d'enfants yi pour ñu wax la lan mooy informatique quoi ah nest pas. waaw mais bien sûr kooku c'est une superbe idée. ok euh, bah d'autant plus que sama papa sama papa directeur euh, kii la directeur préscolaire la donc war yaakaar naa warul jafe trop mu ko gisee avec quelques touches war nañu mën a dem ci euh, préscolaire yi di def affaire yu demee noonu quoi. <laughs> mais bien sûr. si da siy baax sax bah oui alors de toute façon maa leen di remercier bu baax ñu ngi leen di jox dox daje ci beneen semaine ci beneen épisode ak seen podcast Wolof Tech alors merci beaucoup. à la semaine prochaine ciao.